waa kay mbaay <laughs> soxna Mbodia Mbaye ñëwaat na nag waaw man ñëpp mbirum góor ñi laa féeteel c'est normal samay xarit lañ ne ñoom mais bu dëgg bu jotee nañ ko teg ci kaw taabal ci nii daal koy waxtaane góor ñi bàyyi leen wax ju ñaaw nag <laughs> góor ñi bu ngeen jotee ak seeni jabar toog jël taabal seize ban ri ko toog raaj say tànk te sa jabar di ko yàq lu mel ni ketame wax ju ñaaw baaxul am na góor ñoo xam ni barke Seex Ahmadou Bamba billaahi wallaahi Sëriñ Bamba rek laa bu ñu ràcceeg yow kàddu buñ la sànni nga périer ñoo <laughs> dàqa xuloo jigéen dañ lay yàq lu mel ni kete bi kon génne ci jigéen bu matoon kenn du ko jël du ko muur jël ka ndayam baayam du ko yóbbul góor kon jigéen ku bëgg a yem moom munoo ko yor ku yor jigéen am na loo ci muñaale mu baax baax baax baax di nga ni lii mooy défaut kenn mënta matale lépp mais yow bu jigéen commencé di wax ak yow sa jabar nga sànni ko kàddu goo xamante ni dina ko misère misère ba mën na cee jaare génn àdduna mi ngi ci réew mi barki Rasulullah bu jamaay yow barki Rasulullah di ma ci jóg eh, su ma coowee coow li bari su ma coowul coow li bari kon téemaa coow coow li bari dëgg du neex ndax lan lu xew ci réew mi maa mën maa ëpp doole maa féete xale <laughs> kon nag jugal boo jambaay waaw góor du dàgg sante góor du xuloo jantal meen dëgg ay waxam du bari jantal dëgg ay waxam du bari xanaa xam kooku lañ gën a respecté kooku lañ gën a jox cër kooku lañ gën a darajaal waaye góor goo xamante ni bu la sa jabar nee xoos nga diri toog yéen kenn rawul leen ràcc di dàgg santeeg moom te da ngeen koy ñaaw am na jigéen ñoo xam tey ñu ngi ci biir kër yi di sëy barki Rasulullah bëggatuñ ci sëy bi dara dara dara dara dara ndax kàddu gu ñaaw am ñoo xam ne dañ koy xalaat ba jële ci cadre am ñoo xam ne kàddu gu ñaaw googu dañ koy xalaat ba jële ci cadre wala ñu feebar sax daal di génn àdduna wax ñu ñaaw baaxul te am na góor ñoo xam dañ koo mën maîtriser ko te xam fi la jàpp am kàddu goo xam bu ne la ko ciw di ko xalaat 15 jours wala weeru yàlla doon na ci jàpp arrêté wax ju ñaaw baaxul soo ko xamal sa jabar sax na bël ko jigéen dañ koy suturaal jigéen dañ koy yërëm jigéen dañ koy soutenir jigéen dañ koy yiir jigéen dañ koy jàppale waaye am na góor ñoo xam ne wax dëgg yàlla billaahi wallaahi na ma yàlla baal baaxuñu sax pour yor jigéen baaxuñu sax pour téye jigéen parce que li ñuy def jigéen c'est pas normal jigéen bu defee say loxo un nekk tay fiil bu defee ci un an war naa nekk diriyànge bu fees dell te du xont gu mittee koy joxe bu leen yaakaar ni saaku ceeb yeeg bi doo diwli yeeg vingt moo ñuy rëyloo déedéet xel mu dal tranquille moo ñuy rëyloo mu dal tranquille moo koy bataaloo mu doon benn stress waaye tey jigéen di ko stressé roo yor sa wax ju ñaaw du ko ko wax des fois xale bu jigéen dina ma woo yor appel bi di jooy di jooy di ba ma ànd ak moom di jooy ndax naqar bu ko jëkkëram teg ndax xas bu ko jëkkëram xas mu metti loolu ci biir xolam pourquoi pas soo amee yërmande di nga dund loolu góor xolam du wow xolam du dëgër góor du soxor góor du rëy làmmiñ góor du bari wax góor du mën a dàgg sante surtout dàgg sante yow sa toog encore la ma la xamal fa ma jaar ak yow la ma dund ak yow su ma la ko waxee looy wax eh loo mën a moom foo mën a jaar ak moom am ngeen njaboot suturaal ko suturaal ko waaye boo xamul lu ñaaw sax da ko ko fental am na ñoo xam ne jaaruñoo seeni jabar fenn fu ñaaw waaye dañ la koy fental la dóor woo xamante nii buñ la ko sànnee wax cooju ñu tëraloon la tëral la jël paaka rendi la ko moo lay gënal loolu am na jigéen ñoo xam ñu ngi souffrir ci kër ndax wax ju ñaaw am na jigéen ñoo xam ne bëggatuñu dara ci kër gi ndax wax ju ñaaw kàddu gu ñaaw gu leen seen jëkkër wax sosal leen ko ba seen àdduna yàqu te pourtant doomi ñoo ko jur de kon yow ma mën di mel war nga ma cee mën a dimbali nu ma mën di mel war nga maa mën a suturaal waaye des fois sax nag xamuñu ne tus mais xuloo ñëw na rek ñu ràccu baa toog ngarale naan la soo ma nee ma nañ la maa bëgg Mbodia Mbaye looy wax ay maa bëgg cantal meen ay waxam néew jëfam bari soo commencé soo xamee dafa nar a métti mu dem yoonam soo commencé boo xamee ne lii ka dàgg sa tee ma ci nar fekk ma defi fi góor góor góore góor dangay góore nekk jantal meen bu fulaak fay du jotee wax nga ni bëret góor goo gis ay kàddoom néew moom la ñu gën a respecté góor gi naa bëri jox wax fulla ak fayda damaa toog moom la ñu gën a jox cër waaye góor goo xam ne soo ko ne mala ni mu la ni maala ni nga ma mani la nga ni ne fa di da mel ni jeeg bu fegal <laughs> ay Mbodia Mbaye li wax néew mu nekk jantal di wax farata su ma xamee ne carrément yow mii kat wax ju ñaaw moo na dox suñu diggante dañoo war a jàkkaarloo chaque jour di pelloo di ŋàlli ŋàlli man libéré la sëy dagan na tàggoo dagan na donte yàlla da ko bind ba pare bëgg ko waaye bu fi sa see nga def ko moo ma gën a ay waxante yu ñaawaa ah. moo ma gën a dala yàq lu mel ni ketemi de samay doom di ko dégg seen àdduna di yàqu bu ko dundee ak yow bu ko dund ak yow yëpp du maa fay jaar jigéen dañ koy suturaal mais am na góor ñoo xam pour la téye ba sànni la kàddu barke Rasulullah nga dem géej wala kàddu goog te gis wax ju ñaaw kenn bëgg ko waaye am na ñoo xam ne tey nañ ko supporter mais am na ñoo xam ne dee wute ko moo leen ko gën barke Rasulullaay <laughs> Mbodia Mbaye li ngay wax ni doy na de eh, lu ma a wax mi ngi ci réew mi am na ñoo xam te wute ko moo leen ko gënal nga tiim leen wax leen lu ñaaw nga tëral leen rendi leen moo leen ko gënal daa ma góor xam dañ koo mën góor du riiñ baa mel ni ñaari jeg yu xulo jël baa toog naan wel wel wel wel wax doo ci jaaraat te kan nga yàq sa jabar kan nga joteel sa jabar ban sens la eh defaraat leen diggante yi te tey jigéen ñi te leen di suturaal jigéen ñépp a yam xaaj bi yëpp kenn matu ci góor gi leen dàq muñ moo la dàq yor jabar amul koy xëy dina sama lépp a ngi neex lu jabaram baax baax baax lu mu déggoo déggoog moom lu mu jiboo jiboog moom du ñàkk nag un jour am détail yooyu noonu mooy li nga war a muñ ku nekk bind bi la yàlla binde ku ne am na lu ne ci yow waaye góor du bëri wax du ñeme dàgg sante du mën wax ju ñaaw am na ñoo xam ne seeni jabar bëggatuñ dara ci kër gi suñ leen tiimee di sëy ak ñoom sax duñu yëg dara ndax lan seeni xolam moo dagg moom la ñu suur ku góor ki lañ suur te xamuñu ni ñuy def ak moom mu duyoo génn kër gi ndax seeni doom waaye wax nañ leen kàddu goo xam tax nañu suur leen ba faaw wax dañ koy defar wax ju bon baaxul te wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jugee la te cosaanoo kon day rafet góor du bëri wax di dàgg sant mel ni jigéen riij baax lu la sa jabar wax nga nga delloo ko ko ba duble ko su la waxul dara sax nga fente ko ko taxaw nag di ràjj ràjj di ràjj ràjj mel ni jeel arrêté góor ñi samay xarit ngeen mais bu dëgg jotee nañ ko wax de dee leen muñal jigéen ñi